ange billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim maa ngi julli ci yonent bi salallahu alayhi wa di ziyaare sëñ Sidi Maxtaar di ñaanal sëñ Seex Jëmb Fall di ñaanal sëñ Fallou Fall yal na yàlla defal leen wér sama yoon ci kër Cheikh Fall sëñ Fallou Fall bi sëñ Maodo Aminta yal na yàlla defal ko jàmm di ñëw ci li ma mën a wax ci politique laa mën a wax te nit kenn du wax ci loo xamul ndax euh, dafa am koo xam ne ñu ngi wax ci moom di koo xam ne yaay la ah, di xam ne moom mooy yaay mooy baay di Roqeya Sall di nit ku baax di nit ku yiw di nit ku sel nit ku xamut wax yor ay rakkam di seen yaay di seen baay ma leen di laaj ndey de ni bëggee doom amul kenn ci àdduna ku bëggee doom ni ndey bëggee doomam te Rokhaya Sall ndey la ñu ngi naan mooy rakku Macky déedéet Rokhaya Sall mooy maggu Macky mag bu jigéen defoog naa mag bu jigéen nag mooy yaay Rokhaya mooy seen yaay Rokhaya mooy seen baay waa ma leen di laaj nit ki nan nga ko bëggee muy sa doom ngay def lu koy yàqal Awa Diop yow mii laa foog ne yow yaa yàqal Macky ndax bu fekkee ne danga nekk France toog yëngootoo nga mel ni ku nekkoon ci ginnaaw xalifa Sall ngeen dem ba ngeen xam ne xalifa Sall mii kat mu ngi ci kaso bi te du gaaw a génn nga génnaat. mais kan mooy seetaan sa yaay sa yaay nu muy seetaanee doomam muy dugg ci kàmb Roqe Sall amul benn intérêt di yàqal koo xam ne wala muy xeex koo xam ne day jàppale président Macky Sall au contraire day gis ku yàqal président Macky Sall mu jóg taxaw ci ba a deñ Roqe Sall nekk na koo xam ne sax buggul kenn koo xam ne dafa bëgg président Macky Sall ngay am lu ko naqar bu sañoon képp ku bëgg président Macky Sall doo mës a am lu la naqari lu la neex rek nga am ci parti bi ndax man mii nga xam ne damaa bëgg président de man mii te nga xam ne dama ko bëgg rek te yàlla tax yàllaa boole ah képp ku jóg di attaqué président Macky Sall ma xam ne lii da koy yàqal man Daba Macky jóg naa dal ci sa kaw man lu ma ko bëgg benn foog naa Roqaya Sall mënuma ko dab ndax moom rakkam la ñoo bokk ween ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te mooy yaayam mooy baayam kon nag yéen ñi ngeen xam ne da ngeen di defar parti bi awa soxna awa duma wax ci turu wu màgg wi ñu lay dàkkanteel ci cadre politique laay wax ak yow duma ci tudd leneen ci turu cadre politique laay wax booy jàppale président Macky Sall doon moom da koy yàqal te moom dégg naa ne yow Touba gii boo fi ñëwee Roqee Sall bi mu fi ñëwee sa jëmm yaa tax Roqee Sall njëkk a ñëw fii tuubaa yow it jëmm Roqee Sall moo njëkk a tax nga dem fekk ko kon na kooku bu demee ba nga xam ne yaa ngi dégg ci ay moom defal ba ca moom waaye ngay fay ay nit di ko wax wax ju ñaaw di ko attaqué te nekk nit ku sel nit ku baax amul benn intérêt de yàqal président Macky Sall kooku du mës a yàqal président Macky Sall kooku day defaral président Macky Sall kooku pusaab ak wëñam la yor di jàppale président Macky Sall dégg ma bëgg seen yii ngeen def ngeen bàyyi ko bu ngeen demee di ànd ak nit ba gis ne kii mu ngi lay defaral wala mu ngi defaraal leneen ngeen jóg di ko attaqué di wax wax ju ñaaw lu mën a ñàkk la solaatal sa dàll nga dem ba ca roqee roqee nekkul kuy sànni ku yàq ni roqee sàll nen buñ xool la teg ko ci palaat kenn du ko taxal suuf ku ko taxal gis ko for ba mu jekk ko ba mu set wicc wicc ba pepp suuf bépp taq-taq du nekk ci moom parce que nit ku sell la nit ku baax la nit ku am dignité nit ku am diine nit ku bëgg rakkam nit ku bëgg ay rakkam nit ku bëgg ay fameem nit kuy jàppale ay fameem nit ku xam nag ne lii dafiy jeex parce que man boo damay dégg ñu naan roqee de kàddu yu rafet lay wax ndax nee na man fii ñu toog ñeneen a fi mujj toog kon nag nañu rafetal kon lu mënti xew nañu rafetal kooku naan nañu rafetal yow soxna si rafetalal te bàyyi sa ñaaw yi ngeen def di attaque roqee nekkul ku yàqal kenn roqee nit ku baax la mu nga ca France mais teewul fii ne mu ngi yor pusaama ki wëñam lu mu xam ci lu baax lu mu xam ci lu yàq dindi na ko teg na le lu xam ci luy defar dindi na ko teg na le bëggul benn nitu Macky Sall koo xam ne am na lu ko naqari loolu laa bëgg na nga xam lu baax lu baax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala